work. asalaamaaleykum Gambia asalaamaaleykum àdduna wërgal képp ñu ngi leen a nuyu di leen dalal programme bu ñu City Affairs Eh, ma di leen nuyu di sen jaajëfal di seen rafet eh, di rafetlu seen sen seen seetaan rafet eh, tey si kër bi ma ànd fee koo xam ne du ma gan la fi sax parce na te ñëwaat na te dina ñëwaat ñu gën koo xamee si Wally Sarr Wally ma ngi laa nuyu. waaw ma ngi laa Ada di la jaajëfal si plateforme bi ma mhm. dalal ni di si am kontante ak mbégte rek di nuyu ñëpp nak di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak borom réew mi nga xam ne la fi yàlla teg muy président Adama Barrow toppa kan si di système muy mayores rohi malik lo mi nga xam ne la fi yàlla teg si biir banjul fii nii ok wali ñu eh, xam wali ko xam wali xam wali si business eh, si hmm. loolu la wali di yëngu eh, wali lan nga ñu mën wax si sa wàllum business waaw business ma ngi ko door since bi ma school bi drop out e from school du hmm. ma ne jeexal naa school non school moom jeexaluma ko but bi drop out e from school mm -hmm. li ma doon def mooy dama doon toog si vous yi di naan ataaya di play football waaye at the end of the day am koto bi nga xam ne moom laa dëkkal si koñ bi di tooga moom di naan tooga moom di naan moom ataaya mu ooma benn bis dama always dama la dee gis yaa ngi toog di naan ataaya te defuloo dara te ëllëg si biir tamit danga nga nit pour dimbale sa parents si ah, te yow xëy na doom bu góor nga te doom bu góor toog baaxul si moom at least da nga war a teel a jóg nga def dara bala ngaa mag xëy na am dara so ma toog ma dem tëdda ma xalaat kii li ma wax mu make sense ak man ma ne nii ah kii dee li ma wax make na sense ma tabaat ma jóg ma def dara pour jàppale suma boppa tamit pour élégasi bi tamit dina am ñoo xam ne tamit dinañ ma yaakaar pour ma jàppale leen te xëj na am naa ay sisters yoo xam ne tamit xëj na tamit ah, élégasi bi seen loxo di jot seen gannaaw pour ni ma leen a jàppale so si laa dem ak suma benn kilifa boo xam ne ma waxtaan ak moom ah, expliqué ko muy Ibou Faye mu nekk koo xam ne tamit ah, ku baax la ma expliqué ko bi ma ko expliqué na leen mu ne ma ah ma ne ko man de lii laa bëgg def waaye aw ma pour def ko ah mu ikkati ah, lu takku jox ma ne ma ah demal nga door nga def nga seet nga jàppale sa booba tamit ah boobu ba léegi bi ma joxee loolu ba léegi si loolu laa nekk di dimbale suma boppa nekkul ne loo xam ne la tamit ah mun naa see sampa suma kër oo yóbbu si suma yaay maaka waaye nekk na loo xam ne tamit maa ngi mën sustain suma boppa pour toppatoo suma boppa suma amee suma soxla naa ko mën a suma boppa te du ñaan kenn ah, mu doon lu am solo ah, wali ma bëggoon laa laaj tuuti rek comme sa business bi ban jafe-jafe nga si nekk di face when it come to coronavirus bi nekk nii. waaw fu mu nii affaire doy na waar trop ah, dig ah, coronavirus pandémique bii nii ni moo demee fu mu nekk nii kenn xamul kañ la moo jeex. Euh, lu ñu war a def rek ñaan yàlla comme que lii dafa nekk loo xam ne balaa boo xam ne la yàlla moo ko wàccee euh, te yàlla moom euh, nattu bu ko wàccee te si kaw jaan ñi rek li moo njëkk a def dafa seet seen xol ndax lii delloo nañ ko ko ndax delloo wuñ ko ko suñ ko suñ ko ko delloo nag mu saafara ko suñ si séntoo leneen nag mu bàyyi ñëw suñ jafe-jafe ba ñu teg so su boobaa nag li dafa nekk loo xam ne du ne Gambia rek la sonal Ah, àdduna si yëpp la sonal tey gis nañ ñi nga xam ne tey tey xëj na seen doom yi ñu ngi bitim réew ah te seen dépense seen lu nekk du ma ne Gambie fii ñuy business rek ñu nekk bitim réew sa tey pour ñu yónni dafa nekk loo xam ne problème la nekk coronavirus bi nekkoon na Gambie rek la sonal te tey man suma business bi maa def nii xëj na lu ëpp doole gi yëpp li maa liggéey yëpp bitim réew la moo jógee te ay nit ñoo ko yónnee di ma ko jox te dafa nekk loo xam ne food product la yenn ay second hand clothes la day nekk ak yu demee noonu te ëpp doole gi yëpp te it comme ni ma ko waxee rek yëpp Europe la moo jógee comme tey fu mu nekk nii coronavirus bi ni nekk na loo xam ne sonal na àdduna si yëpp business yëpp a ngi taxaw lu nekkaa taxaw fu mu nekk nii nit ki sax yow bul te nguur gi jël nañ matuwaay ne fu mu nekk ni all business yoo xam ne comme ah, bitig yi nii nga gis ni tey bitig yi yëpp dañoo tëj am dafa am waxtu boo xam ne waxtu boobu la gaa yi di ibi so su fekkee ne comme tey right now tey yow toog nga ne nga ne nit ñi tey nañ toog ñu jàppa seen boppa ndig feebar dafa am si réew mi dëgg la feebar am na si réew mi waaye tamit soo ne nit ñi ne ñu toog waaye tamit yow tamit am nga beneen matuwaay boo xam ne war nga ko mën a jël pour jàppale nit ñi tamit because of nguur tamit dafa nekk xam ne tamit suñ taxawalee loi nit ñi dañ war a respect loi boobu noonu te ñu nit respect nañ loi boobu dafa xam ah, sonal nit ñi bu baax a baax. Euh, nga nekk euh, ndawi Banjul euh, jóge Banjul. Mhm. yow tey naka nga foogee ne naka Banjul government bi naka la mun a dimbalee ndawi Banjul yi pour empower. waaw bu yàggut gis nañ vice président bi joxe speech boo xam ne comme ne gis naa doog wooka boo ndawi waaw doog lifin boo xam ne liggéey boo xam ne comme président bi mu isi ndimbal mhm. pour jox ko nit ñi ñu gis ne mu gis ne. Euh, ëppat doole gi ñu fa nekk yëpp du ma ne ëppat doole gi sax ñu fa nekk ñëpp they are foreigners yoo xam ne ñoom ñooy liggéey liggéey boobu noonu dëgg la ah, nit ki tamit dafa nit ki mun la koo forcer liggéey boo xam ne bugg ko xam nga ndaw yi nañ nekk dañ toog jàppa seen boppa waaye tamit foog ñu dugg seen biir dem waxtaan ak ñoom laaj leen lan lañ bugg a def ah nekkul na ndaw ñi dañ na sax de ndaw ñi na saxuñ ah tey suñ bàyyee fii xel tey ëppat doole yuut si yëpp tey fii nii dëkk nag nekkul ni ñëpp ay mën a liggéey ah even Europe sax soo demee di nga gis ñoo xam ne du ñuy liggéey waaw fi ñu ko fi ñu ko wiir mooy si social bi waaye ñoom nag amuñ système boobu noonu fii social bi mënu laa dimbale social bi mënu laa jox dara looy lekka yow li ngaa lekk yëpp yaa ko dem xosula sa bopp nga yóbbu ko sa kër ak seen njaboot nga dundee ko soo tey gis nañ ndaw ñi ëpp doole gi yëpp dañoo toog si vous yi di naan ataaya comme ni ñu ko dee waxee bot li ma wax mooy nañ dem fekkan ndaw ñi toog ñu waxtaan ak ñoom laaj leen lan lañ bëgg a def gis nga nit ki soo ko bëggee dimbali foog demuloo waxtaan moom waxtaan ak moom rek doo xam lan moo nekk si xolam bi waaw ah, dëgg la dañ te wax ne yuul du ñëpp ñoo ne sax am na ñoo xam ne nag bëggu ñoo def dara waaye am na si ñoo xam ne nag dañ xamut fan la ñoo dooree ñooñu nag foog nga dem waxtaan ak ñoom laaj leen lan lañ bëgg a def nga mun leen a jàppale vice président bi bu mu joxee speech boobu noonu ëpp doole yuul si yëpp génne nañ wane seen mer réac wax ba nekkul ne ñëpp ñëpp la wax nekku ne ñëpp la généralise pour wax leen because of nekku ne yut si Gambie ñëpp na sax am na ñoo xam ne am na lu ñoo def waaye tamit am na benn part boo xam ne am na ñoo xam ne tamit am na ñu moo waxal so liggéey boobu noonu nekkoon na liggéey boo xam ne tamit liggéeyu doole la ak lan la ñoo fay nit ki tamit doo dem di def liggéey boo xam ne maan power job boo xam ne at the end of the day yow miinuloo ko at the end of the day la ngaa liggéey yëpp nga dem fajoo laa sonal ah, bu baax a baax soo waaw soo nit ki dafa lazy ah, waaw da nga koo généralise waaye doo mun a toog rek ne ñëpp ñëpp a lazy ah, mu doon loo xam ne ñu bëri rafetlu wuñ ko waaw ah, Banjul yéen yow ban lan moo nekk sa opinion biir Banjul fii ban développement la Banjul soxla Banjul li mu soxla si développement bëri na Banjul dafa yaaxu ah suñ bàyyee xel Banjul dañ ko neglect ah ñun juriñ xam nga noppa noppa moom ak borom xëj na ñun suñ mag yi suñ yaay yi ak suñ papa yi suñ maam yi bi ñu fee nekk jurindi suñ ne Banjul indi fifties o oh, ñoo ba si seventies yi ñoo ba si eighties yi Banjul mu ngi door a yaa mu ngi door a yaaxu jurindi nineties ñun suñ time bu ñoo ñëw ñun ñu ngi am ne ñun ndaw lañ ah comme suñ toogee ak mag ñi ak kilifa yi lu ñu dee wax Banjul lu meloon démb ni mu setee woon ak ni mu rafetee woon Banjul dëgg la infrastructure yi ah rafetutoon naa comme infrastructure nekku fi woon but the city was clean city bi dafa setoon city bi doo gis këyit sa si suuf during the 60s in the 70s Banjul setoon na uh, suñ bàyyee xel paxi dri uh, uh, dri drainage bi dafa nekkoon di dox waaye ñuy dem di dem di dem di dem ba jamono drainage bi yaaxu mooy waral pax yi di fees te drainage bi dafa am système mooy pax yu ndaw yi nekk si biir koñ yi nii dox yi foofu la ñoo jaar foofu la ñoo tuur suñ ndox yi muy daw du those days pax bi daf daan daw doxi set wicc ba nga xam ne suñ kilifa yi ñu ne dañ ci daan jël ay gaal di ko si sànni muy daw ñu ko toppa soo ñu dem ba jamono loolu yëpp yaaxu léegi nag lañ ko mën a fixé foog ñu ñëw on board muy central government ak Banjul City Council ñoom ñoo mën a liggéey Banjul waaye tey gis nañ ne président bi ñëw na si benn boor mu ngi liggéey Banjul mu ngi liggéey tali yi comme ñu demee noonu boo tamit city city council tamit am na leneen loo xam ne war na koo a liggéeyal Banjul because of fii ku ñu fi sànnil carte rek dañ nit ñi so nit ñi people bi they are poor banjul fii nii ëppa doole gi yëpp dañ ñaaka lead council Essa Fall bu yaagut mu ngi di joxe benn ndimbal bir banjul but after all bu mu ñëwee nyutaha moos ñu taxaw moom di waxtaan mu ne moom xamutoon ne banjul amna na ñu ñaaka ñu dëkk biir banjul xam nga fii bala ngaa mun a xam nit ñi ñaaka nañ te nga fekk leen seen kër gis nga toga toga bu baax teg ko si digg mbere bi ne nit ñi leka. leen lekka doo gis ken ku ñëw lekka waaye soo ko defaree ba baax dugg si biir kër yi jox ko nit ñi dinañ ko lekka bi raxasal la bool bi banjul ñu fi nekk ëpp doole gi yëpp day poor poor people ñoo fi dëkk fii ñu fi am bariwut wut ku mun a ikkati sa loxo ne da nga am wut te ndimbal tamit nañ ko jox ñi nga xam ne ñoo ko yelloo ndimbal dañ ko jox ñi nga ñi nga mun nañ afford ñu toog jàppa seen boppa gis nga réew daf tey dem ba tollu foo xam gis nga ñi ñàkk ñoo ñi am te ñi am te ñi ñàkk dañ am cër si réew mi ñi ñàkk dañ am cër si réew mi te ñi ñàkk dañ leen dee desal gannaaw so naka la ñoo def ba nga xam ne réew mi képp a koo xam ne yaa ngi fi dëkk yaa ngi mën a bénéfice foog ñu jàppalante ñi nga xam ne yàlla am na lu mu leen dënka tey bànj lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti am na ñoo xam ne fii leen jógee yàlla def na barke tey xëj na dose diis dañ ñaakoon ba nga xam ne lu ñu lekk sa dafa nekk problème nit ñi dañoo lekk ba pare may leen waaye nag jamono di dox di dox di dox di dox ba barke ñëw tey seen seen ñoom si ñoom waaye tey ñooñu lan daan dundal ñun am na tey ñoo xam ne ñu ngi koo dundal fii nii si biir bànjul fii nii ñoom it dañ war a bu baax delloo seen meen bu baax seet ne ñun lan daan dunda am nañu koo dunda lu tax waruñ dañ juk a jóg ñu jàppale ñi nga xam ne ñu ngi doon dundal ñun lu ñu doon dundal te tey banjul suñ xoolee ya tey dëkk bi fii nii tey dëkk bu ndaw la ay lan la waa banjul bénéfice si banjul xam nga lu dee nekk problème mooy politiciens si dañu Bor nax si benn di nga gis ko ñu koo xam ne dafa ñëw kenn xamu ñu waa alelam ne jox leen ma mi yi di joxe ba nit ñi am yaakaar si yow foog ne kii su ñëwee dina dimbale nit ñi waaye nag soo demee ba toog bi fàtte nga nit ñi. Ah, comme na ko waxee doguma la foofu noonu. waaw ma ñëw tuuti comme que nga ne comme dañoo ñëw rek di joxe. waaw maanaam joxe bu ñoo joxe noonu est ce que loolu dina yóbbu réew kanam. loolu yóbbu réew kanam xam nga réew lu ko yóbbu kanam mooy xam-xam ah yëfi administration dafa uti ak sa own business personal business waaye fii lañ gis ëpp doole gi yëpp soo demee ba toog si place soo demee ba nit ñi sari la karta nga toog place ba nga toog noonu da ko dee privatise moomale ko sa bopp mel yow sa alal la. du sa alal moomuloo ko alali nit ñi la alal bàyyi jox bu koom-koom bay ñëw foofu noonu nit ñi ñoo ko moom nit ñi ñoo koy yeloo jël ko nga jox ko nit ñi nga delloo ko nit ñi nit ñi bu ñu bi ko ëllëga si biir fii képp koo ne rek nga jiite ëllëga si biir di nga taxaw si kanam yàlla mu xisaab la naka nga jiitoo woon nit ñi soo balaa boobu nag bala ñoo àgga foofu nit jéem a def loo xam ne moo tax nit ñi sànni ñu carte ñu jëm leen a liggéeyal tey comme ni ma ko waxee président Adama Barrow kenn amul lu mu ko wax biir Banjul man dama daan train dama dee train every ngoon laa daan train bot weeru koor bi da ngaa gis ne dama dee or duma mën a train bot su ma demee ba dog ba lekka ba suur dama dee jóg sol suma daala taka suma daala di daw biir Banjul di wër biir Banjul tali yi yëpp a ngi baax Banjul amul benn tali boo xam ne xanaa yoo xam ne laalaguñ ko yoo xam ne pareegut tali yëpp a ngi baax tey président bi jóg na ne dafa liggéey Banjul foog naa ne dafa rom a ànda city council bi ñoom ñaar ñu ànda ñu partner ñu liggéey Banjul te banjul dafa nekk loo xam ne foog naa ne ni ñoo demee nii politique am na lu mu defee lu bari biir banjul fii nii te ñun lu daf ñu naxari ah tey city council bi ak central government dañu war partner ñu ànd liggéey suñ ko defut rek ah, ku si nekk sa liggéey dina xaw a sax tuuti waaw. yàlla ah, waxtu xoj nañu lii la ñu waxtu mayoon ba tey wali moom du gan ci kër bi ah, ah. dina fi dellu si waat si beneen parti waxtaan tamit ñu gën a leeral gën yaatal askan bi seetaan ah, ma di leen wax jërë ngeen jëf fii la yëpp di Sahel Network TV bu leen fàtte subscribe leen sa comment yi na daw hmm, jërëjëf jërëjëf